mairie Dakar fexe ba ay nitam mu installé leen bureau municipal bu Dakar léegi problème bi amoon ci municipal bi jeex na de mooy waa Pastef léegi mënatuñoo jël mairie bi. salaamaaleykum gars yi avocat Sonko maa ngi leen nuyu di si ziar <coughs> xam naa patriote yi bëgguñu ko wax ci. problème Barthélémy Dias mais may leen ma bii rek ma am analyse bu ma ci def ngeen déglu bu baax li may analyse bu ma ci def nag mooy Barthélémy Dias dafa waroon Ousmane Sonko pour garde mairie de Dakar ak son post de député tax mu dem andi jeeg Macky Sall Macky Sall di ko utiliser. keroog bi ñu waree génne ne suba la ñuy génne verdict Ousmane Sonko Barthélémy Dias wër na kër kilifa diine yëpp fenal fa Ousmane Sonko. organiser benn conférence de presse mbi fa foore Ousmane Sonko gaaru waale ko yàq ko lu ko neex euh, boobu nag daa xamul woon rancunier bi mu seqal muy Macky Sall bala moo dem dana solde ay comptam régler compte yëpp doog a dem. Euh, benn mooy Macky dafa amoon problème nangu mairie Dakar ndax ba Abbas Fall moo nekkoon adjoint maire te bis bu nangoo mairie bi mairie bi day dem directement si loxoy Pastef Macky Sall amoon dilemme boobu noonu munu koo munu koo nangu buggu koo nangu léegi mu mu fexe ba Barthélemy génne Abass Fall ca mairie Dakar Macky Sall fexe ba ay nitam mu installé leen bureau municipal bu Dakar léegi problème bi amoon ci municipal bi jeex na de mooy waa Pastef léegi mënatuñoo jël mairie bi beneen bi maanaam maire bu ko nangoo léegi amatul conséquence maire boobu mooy jël mooy nekk kii mooy maire bi remplacé woon Abbas mooy nekk maire Macky Sall ci problème mais na ko Barth abal rek ndax li ko def lépp beneen bi mooy euh, treize député la xalifa Sall am Macky daf leen defaloon ne candidat boo xam ne si ni treize député parrainé nañ la parrainé nañ la man na laa nekkal parrain yi boo ko amut da ngay dem ci pare parrainage citoyen Barthélémy Dias bi bu àtte bi génnee ginnaaw suba le le le vingt deux Macky Sall mën na ko révoquer ca suba sax même kii remplacer Macky man mën naa révoquer Barthélémy Dias ci moment bu mu ko deexi bis bu révoquer euh, Barthélémy nangu poste député bi bis bu nangoo poste député bi Khalifa Sall douze lay dese douze est-ce que ki nekk suppléant am est-ce que ki nekk suppléant ki nekk suppléant est-ce que kooku est-ce que kooku euh, taxaw la bokk. yaakaaruma ko benn PDS la man lay yaakaar lay bokk wala PUR wala Pastef wala ñeneen su ko defee beneen problème daal di judduwaat ci taxaw mooy xalifa kon bokkagut xalifa bokkagut yéen a gën a xam ne Macky Sall kii remplacé Amadou Ba du bëgg mu doon koo xamante ne nii moom Macky Sall toroxaloon na ko bu kooku ñëwee tam ma fayu déglu leen bu baax li ma leen wax gis nga taxawu senegal ñoo ëpp problème fi mu nii waa Pastef